dem moom ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñi nga amaan mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloowaatee génn waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Caaroy Géej ku ne xam na ni le 18 euh, mars ki nga xamante ni mooy Coly moo war a dajeek Pape Ndoye bu Ikiri moo ko tëgg Yaram Aar waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Caaroy ci point de presse Coly Faye numéro 2 mu fas yéene wax li li li xamante ni moom la nar ci digganteem ak Pape Ndoye ak li nga xamante ni moom la nar seen diggante yëpp tey la koy wax ndax démb demoon nañ fële ca Fass déglu Pape Ndoye mu wax ay kàddu waaye tey Coly Faye moo war a tontu waaye balaa boobu dañuy jox ki nga xamante ni mooy seen entraîneur seen coach mu sànni ci ay baat ñu doog a dem ci ki nga xamante ni mooy Coly Faye 2 coach nuyu nañ la siyaar. waaw Ba Diouroupé ñoo ngi lay siyaar di la fay di wax ne bisimilah bisimilah inna wal yàlla jërëjëf ci Touba waa di wax ne ñun caaro leen dëkk. Mm-hmm. ñun ñooy kosu booy mm-hmm. dañoo jaar ci làmb ba bàyyi. Mm-hmm. ñu doon ay ndaanaan yoo xam ne dañoo nekk ci làmb ku ñu déggul xam nga ñu. ñu xam li yàq sunu carrière ci caare gii. moo waral ñu laxasaayu ne duñ bàyyi lam parce que ñii ñoo ñooy suñuy champion tey ñoo suñu champion suba kon lu man mën demee lu mu métti lu mu xat-xat dinañ bàyyi suñu live bàyyi suñu liggéey ñëw jàppale see jàppale leen mm-hmm. ku leen jàppale caare nga jàppale ku leen jàppalewul jàppale woo caare yi mm-hmm. ñun nag amuñu lu dul ñii mm-hmm. Reug Reug bëri na fi barki démb daan saa jële bu rëy ñu koy bëggee ba tey jii ñu ngi ciy feetu mais ñun dañoo xamul ñun waa caare yi ak ak Sénégal ak li ko wër lan mooy seen problème ak waa caare comme ñun seen problème comme. ñun depuis bi ñu doonee ay ndaw di bëree. suñuy grand frère ñu leen di pakkasal ci làmb ji ba seen carrière sooxe ñun ñu ñu ñuy fakkasal ba suñu carrière sooxe suñu booy yi nag ñu bëgg a ñëw daaneel leen duñ ko nangu. Tapha Gueye laa bëgg a waxal moom wax ji moom laa koy wax. Moustapha Gueye Tigre de Fass. moom laay waxal. moom xanaa tey lay ji ma tey la doon nitu dëgg. bi caare bi rëg-rëg bëree daan saa kees mu taxaw ci télé bi ne nan joxe verdict bi ci tàng tàng moom kañ la doon baaree arbitre moom Tafa Gueye moom na Gueye maintenant moom lan daan six jëli ci benn ngoon six jël lan ko daan ci benn ngoon Fass ñoon nan xam ne ñoom lamb ju daan yàqu ci ñoom la daan jógee Gris Bordeaux Ousa Sow waroon ko fi ndombe ñoom ñu daw dugg ci géej bi te mujjul fenn kon am na loo xamante ni ñoom mun taxawee di wax ñoom nan xoolaat seen bopp Tafa Gueye ñun gëmuñu ko du arbitre du dara is yaa may dégg ñun caaree la ñu gëm rërë la ñu am booyi la ñu am koli la ñu am birit am keneen la ñu am taxaw nag di wax naan ay ñi dëkk caaree di wax naafeq yi nekk caara yi. biir caara yi fii. ci naafeq yi fi nekk di gis waay ragal péré day xañe wërsëg. ragal péré day xañe wërsëg. su ma la déggee daam ñu nekk biir caaro yi di xeex waa caaro yi ko nangu di fakkasal di fakkasal ñu nekk caaro di takkatu nu bëri caaro duñ ko nangu duñu ko nangu lekkatu neexal du ate dëgg lekkatu ñun xam nga lan mooy sunu alal ci ñii mm. moo ñu jox ñun dama duñu ko caare mooy sunu alal mooy sunu f mooy sunu mbégte solowul xaalis bu ñu jox ak jox ak leneen. ñoo booy xola ñoo booy xola ba ba ba waaye waaw waaw la mooy seen problème. am na solo mais mais ngeen jëm ci bis boo xam ne yaakaar naa ni doy na bis moom it. seen digganteeg euh, Pape Ndoye fan ngeen toll ci wàccaay ak seen poulain. combat boobu pare nan bu doon tey jii nii pare nan Pape Ndoye ñu ngi koy dégg nag ci biir waxam. Mhm. nee nan nee na nawloo wuñu mais nag na xam ne moom combat bu mas a am combat bi combat moom lañ gën a fonk combat bu mas a am combat bi lañ gën a fonk nee na dafay dugg dugaat fa na xam ne moom dafa moy te bu jour ba dina xam ne ñun dund pom du moroomu new déggoo ma de dara jee Serigne Saliou dama koy daan ah, Serigne Saliou laa la waral dama koy daan am na solo macha allah dara parce que danoo jëm bis danoo jëm bis muy qualifié mi moo am combat ñu ñëw pour taxawu ko ñu doon sunuy rak ñu bëre ba bàyyi bëre ñun ñun ndamu caaray mooy sunu ndam. Mhm. ñun barke arxuraan booy amuñu lu ñu jox. ñun ñooy yëkkati o contraire sunu alal di len jox. ñun na caaray bég rek. ñun lool moo ñu intéressé. pour nag ñun li yàq sunu carrière du yàq carrière booy parce que bu njëkkoon caaray teguñu leen fen caaray musuñu ko musuñu ko nawloo ci dara. rëg-rëg bëri na daan jël bu set wicc ñun ñëpp ñu àndandoo kontaan si barke Alaaji Fàllu laa lay waatal seen seen nag ñu ngi xaar pour ñu ñuy wax leneen parce que dañuy alerte. parce que ñoom am nan xaalis mais ñun am nan yàlla. parce que ñoom seen xaalis lan yaakaar pour dem fay CNG bi CNG bi leen jox leen victoire lool nag du fi amee tey du fi amee suba. parce que ñun lépp ñoo yaakaar fay CNG bi. ñoom ñoom am nan doole ñoom xaalis lan yaakaar. bu na amul xaalis mënuñoo def dara CNG ba xaalis rek lañ fa bëgg a dugal mais mënuñu faa dugal dara ñun ñun ay xel lan yor Baye Mandione dafay bëre ak Modou def ko 4 appuis ñu dem ñu ñu wàññi ñu. Ahmed Deme Jackson ñun dañuy seetaan lamb di dund lamb ñun billaahi wallaahi tallaahi booy yi ñu dese fii barke arxuraanu karim ku leen nar a pakasal sunu bakken bii ngay jël ñun caare kase ñor feneen ñor ñun sax boo bëggee dégg-dëgg ñun duñ ay Sénégal de. ay waa caare lan duñ ay Sénégal de. caare bokkul Sénégal déedéet ñun ay waa caare lan. loolu am na julli Seydina Mohamed sant yàlla bu baax a baax a baax. combat bi dafa am lu ñu tax a ju man su problème combat bi laa su ma paree doo ko wax ne doon doon kon bu ñu demee ba seen i doom juddu si ngir yàlla jëmmi rasulullah nag sa grand yooyu tey jii nekkoon fi ay mbër sa ñun ñun ñun ñii tey jii nekkoon fi tey jii ay xale ndaw dem di mhm. ne tey jii mhm. ñu amaat tey yeneen doom yoo xam tey juddu nañ fi tey jii ñu si mel ni bas ku si ni kóli mhm. ñëw di leen jàppale grand frère ngir yàlla bu ñu amul ab dépasse gaal dem géej caare ab société boo fi nekk société boo fi nekk caare doom yi na dëkk caare màggee caare non dina am mu mel ni biir caaro yi non na fi ay yoo xam ne ay mbër lañ ay mbër yu bëre ba tey wala yu bëre danoo million million bu dem million bu moo gën a baax million tey bii ay wax laa la wax million bu dem ba moo fekk million moo gën a baax million tey bii te ngeen fayee ko nañ sax war a mën a dimbali seen i yaay war a mën a dimbali seen baay tey loolu xaalis tey nax saay ñu dem di topp ay mbër ma wax doomu day daan mu neex mu naqari. Ah, mais ngeen am bis boo xam ne alxuraan ko wax dina ko ko ngeen daje xale bu nekk écurie bu mag man waxuma loolu Pape Ndoye Pape Ndoye li mu wax na loolu bas na loolu bas si kattanu suñu borom yal ñëwul de ah? mbër mi ñëwul xam na la mooy ñëw sorcé bee ñëw lu mu baax dinañ ngeer sorcé bi mooy ñëw kon loolu bi mooy ñëw yarmin bi mooy ñëw. am na solo si kattan am na solo. di ko am kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii. Mhm. déplacé ñëw fii. Euh, ñun nag li xale yi wax rek laay wax li ñu wax mooy xale yi xale yi dégg ma moom lañ am moom lañ ñoom lañu tiitaroo te gis nga mbër mbër du wax moromam nawlawuma la loolu du kaddu du kaddu du kaddu mbër waaw ki muy bëreel loolu mu wax loolu du waxi mbër li Pape Ndoye wax Pape Ndoye Pape Ndoye loolu mu wax loolu du xëy mbër mbër du wax du la boole nit combat nga ne nawloo ma ko loolu du la loolu mais est-ce que tam du bataille psychologique lu bataille psychologique mais rafetul bataille psychologique boobu rafetul waroo wax sa adversaire raw nawloo ma la mais nan ngeen préparé seen poulain pour le 18 ku ko xool ku ko xool xam ne préparé nañ waaw parce que moom ci défaite la jógee. Uh-huh. xam nga lu ma la dafa jóge ci défaite te incha allah rabbi di eh, luñ lépp luñ mën a def dégg nga maam te défaite boobu face face la. face la waaw face la ko amee. dégg nga kon nag léegi waaw face benno léegi nag tey bu bu ñu ñëwee tey tey bu ñu ñëwee tey ba mu duggaat foofu ndam la am bu soobee yàlla mais combat biir euh, bi bi man Balla Gaye Balla Gaye loolu mu def dugg ci biir stade bi rafetluwuma ko. moom Balla Gaye moom Balla Gaye 2. gunge raxam waaw non non parce que nit dañu ne képp ku am licence. dañu ne ci eh, ci article yi la bokk. dañu ne ku am licence. mbër mu am licence waroo dugg ci biir géew. même bu fekkee yéen a bokk écrit mais am nga droit nag ànd ak sa jàppale ko woo ko amoo droit dugg ci biir enceinte bi te kooku nag ñu ngi xaar ndax CMG dina ci jël ay ay matukaay wala luñ ko ñu ngi ñu ngi leen di déglu waaw parce que ñoom ñoo wax def ay article da nga mam ne mbër mu am licence waroo dugg ci biir géew mais première action bi premier action père lan ngeen gis foofu première action diggante Sa Sa Thiès ak Reug Reug trois appels trois appels la gars yi ñoom ñoo jump def seen affaire def lu leen neex. waaw mais trois appuis moo am. mais waa Guédiawaye dugal recours. waaw dugal nañu recours boobu génnee. waaw CNG am lu mu wax. waa Thiaré lan moo ci seen taxawaay. ñoom ñoom ñoom ñun am nañu ay kilifa. lamb ji ah euh, moom ñu ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu waaw Reug dafa daan. dafa daan dafa daan jël bu leer. macha allah waaw. waaw ayca jërëjëf kontaan nañ ci yow jërëjëf jërëjëf ayca ñu ngi kontaan baax. gaay yi. wala yàlla bisimilah wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla jëli si yoon bi gërëm suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fi mu tëdd gën a ko fi mu jógee di ñaanal yàlla suma borom xarit ko àjjana si àjjana fi daw si suma yaay suma xarit suma sëriñ ma koy ñaanal di ñaanal suma xarit Fallou Ndiaye yàlla suuf wooyee si kawam yàlla suma borom xarit ko àjjana si àjjana fi daw si di nuyu ñëpp avant tout balaa may wax dara. Hmm. damay sant waa Thiaré yëpp si événement mag bi ñu jugee. waaw si événement mag bi ñu jugee. Hmm. muy sama doom day rek rek. suma xarit suma nit suma lépp. Hmm. waaw ñuy sant Thiaré képp ku yëngati kuréel doon ko ñaan si lamb rek ñu lay sant gërëm kontaan na taxaw bi. Thiaré kenn génnul. Thiaré waaye laa wax ñi nga xam te ne Thiaré mooy daw seen yaram. ñu dëgg Thiaré juddoo fi. juddub Thiaré yi ñi nga xam ne ay bañkat lan ñu leen sant bu baax gis nañ ni ci combat man damaa am combat de. Mhm. mais combat bi passé moo ñu gënoon a ñor combat boobu. combat ñaari yëpp ñor nañu mais bi passé dafa rawatina boobu. Mhm. te boobu nekkoon na combat boobu nekkul lu mu waroon a ñàkk. gis na ni mu demee nag. sawaay waay bëri na ko si ni mu ko war a bëree. def na li mu war a yëpp yàlla su borom may na ko ndam. ku ne mu ngi di salteel. yaa ngi dégg ñun dañoo xam ñun ñun waa Thiaré ñun ñun si ban pays lañ bokk. fekk dañoo bëgg a génne làmb ñu wax yaa ngi dégg baa mu yor ma loo am na fi kenn wax si. Walfadjri jamono yooyu moo fi def ko arabe gars yi naawal leen ñu dindi ko yaa ngi dégg Ameth Deme Jackson bi mu ñëwee gis ngeen Ameth Deme Jackson kadaap yi leer nañ la def dañu see jaay doole ñu ñàkk ko Moustapha Gueye yaa indi avertissement si lamb ji jigéen dara daan kat jéelu bokkul la moo a gore woo dem yëkkati loxam ah yow yow yaa fi indi violence si lamb ji fi indi avertissement lamb mbër mbër faas ak mooy bër ñu koy mbër ñëw di atte combat di ko yóbbu Lac Rose Moussa Ndoye Moussa Ndoye da koo dóor ba ngeen nangoo si ay loxoom yóbbu ko CNG waxu si ba tey jii nga nit da nga yor sa paanu mbale di wax si yow mbale di jàmbur ñun ay xale lan de mais mag moo nopp moom nopp moom ak borom man lay dàq goon ngay tëb miir ñun loolu fi lañu fekk ay xale lañ mais dañuy dégg dafa nga ñun ay doomu jàmbur lan macha allah am na solo ñun ay doomu jàmbur lan caare yi réew la boo amee looy wax nga dem waxoo say mbër yow da yor ay mbër yow fàtte nañ sax yow bokkoo Fass géej waaye nga bokk ndax fii la Gris Bordeaux di bëre tudd Balla nga dem jël Serigne Ndiaye yóbbu ko mu koy contacter am nga xaar ruus a di ko wax. bala nga dexee nar a nga koy contre. am na solo nga am comme yow ni nga nekkee doomu jàmbur ñun ay doomu jàmbur lañ te ñu cër biñ moom. macha allah am na solo. boo wa rasuuli maa lay ñaan maa lay ñaan lillaahi la disul nga indi Pape Ndoye nga taxaw ma duma ko sa daan ko macha allah am na solo Coly Faye kaddu yi am na solo mais nga jëm ci bis boo xam ne Sénégal gépp moom la ñuy xaar moom la ñuy waxtaanee mu war a am le 18 mars yaaram Aar tëgg ko mu war a dox sa diggante ki nga xamante ni mooy Pape Ndoye foo toll ci wàccaay yi. waaw avant tout dañuy gërëmaat fii ci bënjee ñaar yëpp ñëpp gis nañ ni ñu jógee ci la cinq bi passé fii ñaar yëpp di leen sant di leen gërëm ñu ngi remercier ñëpp di féliciter rek rek di waxal moom jàmbaar la bu mu mus a du xam naa du bàyyi sax mais dañ koy ñaaxaat paaka lu mu ñëw ñëw ñëw koy daas bul musa bàyyi te sa tàng foofu la instant yi dugg nga de defal sa boobu dugg nga yaa ngi biir VIP yi da ngay bëre far force da ngay bëre combat royal ba bëre combat royal tam nga bëre di nga bëre combat bu ko jegee dugg nga seen biir ñu mu neex la ñu naqar far force da ngay bëre ñoom ku la si bañ dalaa ragal ak nga far force waaw macha allah fa toll sa diggante ak Pape Ndoye pare instant ko parole ba heure bi dootoo pare parole ba heure bi dootoo pare pare nañ instant dañuy mootal nii rek dangeen ngeen di mottali. kese instant yi instant yi kon yaa ngi ci ñaata science ñaata science la Coly di def. instant yi deux sciences def. deux sciences. waaw amee xëy dem Saal. Ngor mu ñëw fi contact. Mhm. mais mais mais mën a xaar seen diggante yéen ñaar seen diggante ak Pape Ndoye. xaar nañ ci lépp. lépp nañ ko ci xaar. nañ ci xaar xeex. loolu xalaat xaar lañ ko ci. nañ ci xaar lépp. bu xeexee. ma duma ko. su bëree dëpp. mais lamb ji nekk euh, ñaari diis mën nañoo xaar dix minutes yu njëkk yi nekk dix minutes yu tàng jër xeex am jóob joxal njaay seen diggante. gis nga àndaw son na nga def minutes. yokku temps bi. barke yàlla minutes minutes mi quatre vingt minutes. mel ni Coly Faye dafa mere Pape Ndoye. non mere ma ko nag de. mere fan lu ma def ma koy moom bu jeexee jeex na. Mhm. mere mhm. ma ko jàppal ma ko dara. li ko jàppal man daal nit loo koy jàppale woon nga si biir géew bi. Mhm. yaakaar naa yaakaar naa démb la woon point de presse am dégg nga waxam. mu ne mu ne mu ne mu ne Coly Faye nawloo ma la nga koy tontu ci loolu. waaw loolu ma koy wax loolu moom moom xaaral moo toll foofu rek mais man nawloo naa ko ndax parce que moom sama morom jullit la sama morom góor la ñoo bokk suñu maam Adama ak Awa bu ma nawloo ma nawloo naa ko làmb kese la bu jeexee jeex na nit da ngay nawloo sa morom jullit bu ma nawloo ma nawloo naa ko. mais kolifay Faye da ci ki nga xamante ne mooy Ada Fass. Mm-hmm. yàlla def ma am fa defet mu ñëwaat dugg ci Pape Ndoye Coly Faye lan moo tax mu jël Pape Ndoye. waaw ah, bu ko daan rek moo tax mu jël ko. bu ko daan moo tax nga jël ko. waaw ah, dama koy daan incha allah. mais est ce que dina yomb seen diggante. man de loolu laa jàpp. da nga jàpp ni dina yomb. waaw loolu laa jàpp de. mais mun nañoo xaar mun nañoo xaar Coly Faye bu ñëwoon digganteem ak Ada Fass ñëw indi confiance boo xam ne yaakaar naa ni confiance bu ëpp bi bokkoon na ci li tax Coly Faye ñàkk combat boobu. non combat ña war a ñàkk ñàkk rek moo moo ma ko xañ. Mhm. man nag combat yëpp noonu laay ñëwee. Mhm. ku ma xam-xam ne man noonu laay ñëwee. Mhm. war a ñàkk moo ñëw rek ñàkk. waaw mais mais ban qualifier la ñuy xaar de d'ici. qualifier bi daan ñëw. bi ñëwoon contre Ada. bi daan ñëw ci làmb yëpp mooy ñëw. waaw mooy ñëw. mais mais waa Fass moom nee nañ combat bi lu lu jaral waa caar bi jaral na leen ñoom lu ko ëpp. loolu ñoom loolu def leen a loolu ñoom la concerné ñun li ñu liggéey ñun ñun la concerné. ñun li ñu liggéey ñun la concerné waa Fass li ñu def loolu ñun ñun lijjantiwuñu ko sax. loolu seen affaire la. ñoom ñoo xam. boo amoon tey loo wax Pape Ndoye. lan la li koy wax mooy di ko ñaanal jàmm rek ak salaam di ko ñaanal wér ak ba bis ba ñëw ma jàpp ko daan ko jël bu rëy. mais mais Coly xam na dayoo combat ak fi ko combat mën a yóbbu. bañ a xam ma xam si li ma jugee xam si li ma dugg xam naa ko bu baax. xam nga fu mu la mën a ma ñi ma àndal yóbbu ma leen damaa teg jin cin laa teg di lu ñu tàng jër di lu ñu sant te waruma bougé su may bougé muy tàkk damay taxaw xool ko ba mu ba li ci war a dem dem ci. macha allah damaa teg cin waruma bougé. waroo bougé barki alxuraan dama bougé. <laughs> boo bougé mu tàkk yaa dëgg la samay fans man dama leen yoral bor. te bor dama leen koy fay incha allah rabbi. PAM Ndoye ak keneen ku dul moom. ah. Mhm. Idi. ñu leen nuyoo mhm. ñu dem la seq mhm. la. mu lay wax rek. fii ni moom boo taxawee seen mbokk wër la. nga taxaw takk say cité nga sa biir ni faaj say wet di génn say femme di lang loolu neex ngay wax. loolu neex ngay wax. <laughs> xelam moo dal rek moo tax muy wax loolu. jot combat lu loolu day ñëw. leneen lu loolu day ñëw. ndax boobu xooy laa échange yi màgg naa. si xeex loolu rek dañ maa war a yedd. lu gën a pire loolu laa indi. lu gën a piir loolu. mais Coly euh, nga jige woon sa diggante ak yàlla def ba ngay dem sa waajur bu jigéen nekkoon fi. tey bii nekk sa première sortie boo xam ni euh, da nga génn te sa waajur bu jigéen nekk fi loolu noonu lan lay def ci kilifa yi. non question yooyu dañ ko pousse ñu dugg ci leneen. ñu pousse ko waaw question yooyu dañ ko pousse. a kon. Hmm. wooteel. waaw maa ngi nuyu Thiaré gépp di nuyu sumay xarit ku mel ni ñoom Cheikh Mamou Birane ak ñoom per Alla waa Igiri Thiaré ndigal ak waa Igiri Thiaré ma kenn maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp sumay xarit ak sumay rakk ñoo bokkal ci côté papa ñoo bokkal sumay mag. su may jarbaat ñëpp bàyyiwuma kenn ak su may rakk ñëpp su may mag su may xarit ku mel ak su ma waa SF ay ñoom ñas mais mais ci wàllu mobilisation lan lañ mën a xaar. non mobilisation caare moom ñëpp ay génn. caare dañuy génn caare benn gox la. gisoo lamb ji baax gisoo réew lim indi keroog. da koo tëj. waaw macha allah kay. arène nationale na am. tëj dem ban tëj porte yi. rek da koo tëj. te rek damay aal loolu force. daf la koy aal dama koy indil. mais lan wax xale yi lay topp. xale yi ma leen di wax mooy ñu ànd ak rek. xam ne seen mbër moo lañ ñor duñ tooñ kenn nag mais kenn duñu tooñ. caaray moom. Hmm. duñ tooñ kenn mais kenn duñu tooñ. waaw duñ dépassé kenn mais kenn duñu dépassé. macha allah waaw ñu loolu ñu indi di nuyu ñëpp. di nuyu nuyu ñëpp di nuyu maas maasu maire nees koñ bi yëpp. di la nuyu caaray gépp ma koy jël di ko teg si loxo su ma mag mu jàlleel ma ko si ñëpp di nuyu sumay goro di nekk Zeng Mbaaw caaray ma jël nuyoo bi si loxo si jeunesse bi jeunesse caaray. ma jël nuyoo bi di ko teg si loxo sëñ daam mobilisation bi loolu bàyyi naa ko si loxo njool mi. kooku moom mention spéciale mbëri caare yëpp ko war a sant gërëm ko amuñu fayam da gis nañ caare yi ku ci xew la gis nañ ni muy taxawoo da jiital boo yëpp yóbbu leen jënd ay pétalam yëpp di di di jibile mën naa daal mobilisation bi gën a am doole caare yi moom ci la moom ciy géral bu baax loolu ñu koy sant bu baax di ko gërëm gis nañ taxaw bi gis nañ combat Reug Reug bi ni mu ci sonnee mobilisation bi mu ci def ñu koy sant bu baax ko gërëm sama combat Ada bi passé tamit passé ak sama sama yeneen combat waaw ñu ngi sant ñëpp mbër yu ndaw yi nekk ci écurie bi ak mbër bépp mbër bu nekk caare maa la sant la gërëm ñëpp ñu jàppale contact ñëpp képp ku doon jàppale Reug Reug contact ku ma jàppale contact ñëpp ñu ngi lay sant la gërëm bàyyiwuñ kenn doo tudd kii di bàyyi kii kii di mer di sant suma waa saf ñas ah ñoom baylaat ñoom bayfal ñoom Zeng ay njéenu gars yi bàyyi ma kenn di woo sëñ Moussa Boris grand Lamine Wade ak maire Diena ba Ndiaye bu Kër Massar waaw Siripin le grand coach coach bi xew si jamono waaw borom nen bi Abo Fall sunu grand borom aselem di nuyu waa aselem yëpp Cheikh Dioum di ko bëggee bu baax di ko ziar moomu waaw kële ancien mbër la bekk daa bàyyi kama ah. nuyu yëpp sama gaay yëpp ñu ngi nuyu yëpp sant ñëpp ku limu a xamal dañoo juum ñu ngi sant ñëpp grand yi grand koñ petit juif grand juif petit lion récupéré dal jàmm waa zone France waa camp baawuñ kenn caar yëpp daal keroog ASC yëpp ñu ngi woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp yaa ngi jàkkaarloog Pape Ndoye loo koy yóbbante Pape Ndoye mhm. ñaara soxna la wala indi sax kaa soxna am naa benn soxna bu ñëwee ma takk trois ay benn ma def ko takkoo Pape Ndoye ñeenti soxnaam yooyu am naa benn bu ñëwee ma takk trois mu ne quatre benn ma def ko takkoo père ren daa mu bëgg a sànni. Colis père père ñëwal père. bëgg a sànni. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla junni Seydina Muhammad kàddu yi ñu sànni mooy que yokk leen a sant yéen sit yi di ñaan yàlla fi média yu mag yi egg yàlla na fa sit yëpp egg. amiin yaa parce que vraiment li ngeen di def. dafay dundal sport surtout sportu làmb kon bala ñuy wax dara dina leen sant aussi di féliciter sunu doom. muy Reug Reug soo jógee na si combat fee combat bi gisee gunu c'est la première fois pour ñu génn def sotti wax bala ñu def dara dinañ ko féliciter di ko sant di ko gërëm xamal ne liñ bëggoon ci moom defal nañu ko di sant ahlu kaneen yëpp gis nañ seen taxawaay ak seen yaatal te sport noonu la bon di yokk encourager xale yi xam ne fi ñu teg seen tànk foofu la caaroy but ba but ndañ ba ndañ benn bopp la kenn mënu ko xarñaar caaro yi kër goo fanaan fanaan nga kër yëpp kon nii ñi mobiliser woo di ànd boo ko ndey boo ko bàyyi nañ ko continuer bu dara xaj seen diggante combat bii paase nii muy combat Reug Reug bi combat bas la woon combat bas combat Reug Reug la muy keneen ku mu manti doon amet demoo ñoom ñëpp ñoo bokk benn drapo bu nuy bu nuy bu nuy bu nuy dem di ko reñe di indi caaro yi vraiment doon na loo xamante ni suñu fierté la ñun ñi nga xamante ni ñooy seeni kilifa des ak ñoom dañuy ñaan yàlla yàlla yokku leen may dëgër laay yokku leen a boole tëral seytaani seen diggante ba luñ bëgg ñu am ko vraiment kontaan nañ sant nañ leen gërëm nañ leen moom mi nag taxaw moom la bésam kii lu mu amul ci làmb rek sunu borom la mais mérito na lu ne ci làmb parce que li ñuy wax doomu mbër kenn gënu ko nekk doomu mbër. tarbiyu na ko bëgg na ko te li mu laaj aussi mi ngi koy def te vraiment xolam bu fekkee xol rek la yàlla defee kii il faut mu am ay millions ci làmb ji dina am loo xamante ne bu soobee yàlla lu weesu njortam parce que liggéey na ko te taxawu na ko. seul moom mën na ma ne moom bokk na ci ñi nga xamante ni tey jii. bu nuy wax cent pour cent caaro moom ci ni ko ci la bokk moom bu bëgg lu ko neex man ku ne xam na ma dañ koy gis ci bisi mbër yu bëri mu leen ñu tax dama ne la man dara feesul sama bët kii xolam mu ko yàlla fayee léppay baax maa ngi dégg nag bon parce que man aw ma occasion dem làmb ja tey laa occasion pour wax parce que gis naa média yi ñu ngi wax ñi naan nii ñi naan ne mais waxaguñu sax. Hmm. waxagunu des na des na. Ah. parce gis nga taal bu yàlla taal sànni sa matt moo gën fay ka doomu aadama tuuti na si li yàlla di dogal doomu aadama di di foqat ñi loolu. làmb ji dañoo war a sérieux parce que image su photo bokkul ak image su. appareil vidéo bokkuñu. jaar nan ci làmb ji def nañ ci làmb ji le boobu média melul nii. ñun daan tasal yi amul benn doomu aadama boo xamante nii ñi ngi wax nag ñu kenn mbër kenn mais mbër dama ne la bu fekkente ni école la fii mooy université mbër caaro yi waxuma ko nag ngir bëgg lu neex caaroy wala juddoo caaroy mais dama leen di wax li am mafia nag bi nga xamante ni mooy am ci làmb yi dafa war a dakk parce que mafia wéeru weesuwul ñëpp di say ay doom nga ut fooy far ak nii wala neneen làmb ñun ñi ñun ñi fi ne nekkoon ci ba jóge si danoo war a rafetal uuf ñëpp di waxtaan ak cerveau di wax ak diplomatique mais di baaw di wax fii wala feneen yooyu amul rendement parce que rëg ak Sa sunu ay doom lan mais bu dara amee ci làmb ji arbitre c'est le maître de terrain arbitre bu xasee ba ne lii arbitre nag dina juum lu ne dina juum mais nag lu ne fàng kenn du ko jeex te image yi ak image yoo xamante ni vidéo la ñun yàgg nañ ci làmb gis nañ ci lu ne. macha allah ma jon daan na fi Modou Lo kat appui Ahmed Dem même chose ñu ne dañoo atte ñàkkal caare atte wuñ ñàkk caa bi la ñuy ña parce que nit ña ay cerveau lañ. sant naa ñëpp gërëm naa ne ñun nag xamuñu lu xa xamuñu lu ñaaw moo tax duñ mës def image bu ñaaw duñ mës wax lu ñaaw. macha allah parce que dund dund ñu loolu. bu ñu fekkoon dañoo dund lu ñaaw wala ñu wax oh, kii lu ñaaw lin ñuy def yëpp ñu naan caare amuñu bàjjan nag amuñu ndey amuñu ne am nañ ko mais dañ koo nàmpul weer ñi nàmp lu ñaaw amu ci. sant naa ñëpp nag gërëm naa ñëpp. di encouragé bu baax xale yi di encouragé Reug Reug yàlla na leen yàlla may ay ndam yu raw yi te bu soobee yàlla dina am. waaw damaa fàtte woon sama gars yi muy waa mbaar bi waa mafia 444 bi. 444 waaw mooy booy di leen bu baax di la wax ñoom lamb ji jaral na leen ne. lamb ji lamb lamb kii la. Krépin waa laa tuddee lamb ji. waaw kii moom moom lamb ji moom victoire bi. mafia 444 bi sant ñëpp di woo ñëpp. bàyyiwuma kenn kontaan naa si ñëpp brise. na ko gars jël. Brise Mer na ko jël lu ñu koy tawee. li muy daw Bébé Diène ñoo ko dox muy daw. Bébé Diène waaw lamb la de. voilà surtout loolu. man Brise Mer du ma nooy de. ku ko daan na ka jox. Bébé Diouldé dama kaa jëli paase ne coow la bëri trop gisul kaa jël dafa diis mais biir si biir géew rek benn affaire ngay wax man neexuma bëri dama bëri affaire biir neexul de biir fu na la jaar moo tax yàlla ku li fee ndam na Pam Ndoye dina xam ne bu ñëwee dina xam ne la